muy la di dem di di dem di dem di na ko yàlla na ko yàlla def yaayam baax na moom borom xol bu rafet la Cheikh Bouya yàlla na ko yàlla defal càmm yàlla ko yàlla may ay ndam yu bëre bëre bëre ndax morom yaay ju baax la yaayam kenn gënu ko maama moo daan faj nit ñi fii leen jox añ di leen jox reer fa dëgg sa kanam wiiw sa kanam rek ma ne waaw Cheikh Bouya bu góorgóorloo tuuti dina am lu baax nag ndax yaayam a ko muñ ci kër baayam gis nga fi muus mu ñu afra ko siis ko mu toog bu ko jëkkëram joxee kenn xamul bu ko jëkkëram joxee kenn xamul am sutura sonn na ci njabootam gi yàlla mën na koo defal lu baax na góorgóorlu rek te xool bëtam rek fu mu ko war a xool bu jëlee ay maamam alaay nde faal bàjjanam soxna faal ba maamam euh, Fatma kan bu alaay nde faal daan fat nit

xam nga tey la tey suba la nekk ndax Cheikh Bouye ñun la sagal ndax Cheikh Bouye yaayam bi daa sey baayam gëm yàlla mu ñëw ko nag ci ëttu faalim bii mu yor fi vie ci ëttu faalim bii te dara ñaawul dawul mu bu dawul dal dawul dara sonalul baayam ci dara da koo muur da koo muñal sayal ko ba yóbbu ko ay àjjana ju kawe la kon nag Cheikh Bouye bu góorgóorloo dina dugal yaayam ci kër te ñu ngi koy ñaanal lii ñu koy ñaanal suñu xol lañ ko tuddee ndax ñooy ay yaayam yàlla nañu duru ba lii muy ndamoo yàlla ko ci yàlla may ay ndam ba mu dugal yaayam mu nuyu nañ lay fay law. avant nga ci préparation combat bi parce que da nga jógee ci défaite. Mhm. jëlaat combat boo xam ne. gars yi ñu ko yëgee nan waaw li ñu koy dundee mooy ànd ak suñuy mbokk rek préparé xam ni loolu premier combat la xam nga waaw ñu gëm ni bu ñu ñëwaatee dañu am victoire ndax dañoo amoon ay erreur bu ñu demee après waaw liggéey nañ ci loolu ñu ne suñuy coach ay ñoom Pica ak waa Colobane mbooloo yëpp. maa ngi bëgg képp ku nekk ci équipe bi rek jàpp nañ ci combat bi ndax combat bi li ma bëri nii ñoom ñoo ko wax ma ko daan gis naa ci résultat bi maa ngi leen di bëgg bu wér a waaw di bëggee nag sama staff yi ñëpp sama staff yi ñëpp waaw ndax jàpp nañ ci sonn nañ ci quoi sonn nañ ci bu baax a baax a baax lépp lu mu laaj def nañ ko waaw fépp fu ndam nekk dem nañ uti ko waaw ñaan fu nekk nag waaw di santaat yàlla bu wér a wér waaw. tey man law man damay toog rek dem entraînement ji man amul ay séance amul kii damaa tooy damaa feebar. toog rek sa xel ne ci entraînement waaw man loolu laay def dañ naa ma noppalugul. parce que Seydina Mouhamed. kon yow kon yow monsieur préfet yow kon journée bi daanaka entraîné ay 7 fois 8 fois mën na xaw ma mais damay xëy rek dem entraînement ji su ma sentiree entraînement ji aw ma heure damay entraînement ndax mooy sama liggéey. Hmm. soo bàyyee lépp adopté si loolu da ngay waaw da ngay focus si loolu kon waaw su nga am defet nag. waaw tey ñu gis nga changé fi nga doon ngemboo ñëw ngemboo sa kër maam. sa maam wax na léegi. Hmm. sa diggante ak sa maam lan kii moom ñii ñoo ma yar. ak seer seer ma koy ñaanal yàlla na suuf oyof ci koom waaw ñoo ñoo ma yar fii suma ma fi ngémboo la fi war a ngémboo su ma fi ngémboo la fi war a ngémboo ndax kii sama maam la ñoom ñoo ma yar li ma wax fii sax fépp fu ma bëggoon ngémboo sax dañ koy jox ndax man dama ko dund ñoom mais kii sama maam ma préféré nañ pour ñu fi ma ngémboo fi di ko sant nag bu baax di ko gërëm waaw wéer a wéer di ko ñaan yàlla bàyyi ko fi mu dund xam nga ba ñu fekkee teraanga yëpp waaw man li ci kanam moo li ci kanam mooy waaw moo ëpp fuuf barke Serigne Touba tey euh, ñu gis génn gi tey. Mhm. nga serein stade bi serein euh, boo ak combat bi passé bii mu mel ni tey monsieur le préfet tey dafa mel ni yow dafa am tey lu nekkoon sa kanam nga def nànk rek na gars yi nañ dal. Mhm. dal bi yow la wala gars yi la. waaw mais xam nga premier combat moom xam nga ñëpp dañ lay bëgg ku nekk fu nekk lay jóge andi bitéelam xam nga. te doo gàntu kenn da ngay jël lépp xam nga. yéene la ñuy demee nga def lépp mais après bañ jógee ci loolu dañ toog ñu seggaat ñu defaraat. mais lu ñu def gis nañ ci ndam xam nañ ni lii mooy baax comprends nga nit dina la yéene nag lépp dugal la fu nekk ci àll bi mais yow ñi nga pareel ak ñi nga xam ne ñooy sa mbokk ak ñi nga xam ne ñoom nga préparé le combat bi ñooñu ngay waaw ñooñu ngay jox lépp quoi comprends nga mais ni da lay dem si sëriñ def lu nekk comprendre lu baax lay jublu ci yow mais ci andee biteel bi amaana yow tey biteeloo bu sa biteel te lu baax la si jublu moo tax dañuy gën a defaraat xam nga di sant ñëpp nag ak ñëpp ñu doon ñaanal du ma jaar turu kenn ñëpp képp koo xam ne nga doon ñaanal Cheikh mën naa lim kii fàtte kii di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen wax ñaani dal na bu baax a baax a baax a baax te li ci kanam mooy raw. mooy nga génnee gis mbooloo mi mbooloo mi li mu fi bi nga taxaw si bunt bi saa la li mu war a defal yi na la nga war a def nii nii lan man law sama yaay sama xarit la. dëgg bu nekkoon man kese du ma dugg ci làmb. Hmm. sama yaay. Hmm. moom laa dese sama papa laa sama yaay laa dese. comprendre nga di ko ñaan yàlla bàyyi ko fi quoi mooy moom maay man du ma réer moom ci dara su na ma jàppal ma jàpp su na ma bàyyal ma bàyyi waaw ba pare na ma joxal ñëpp cër waaw ba pare man noonu laay wuyee quoi noonu laay doxee waaw di sant ñëpp nag di sant ñëpp waaw di sant sam benn waaye nag Aba Aba Cissé Babacar Cissé ku baax la barki Serigne Touba Mbacke nit ku baax. depuis Espagne waaw depuis Espagne barki Serigne Touba Mbacke waaw dañ waxtaan ci lu bëri mu may xelal yëpp gis naa ko xam nga ay Pape instant bi daal bëgguma lim tur quoi xam nga soo limee tur da ngay jum. dañuy ñëw sax parce que Serigne la. Mhm. parce que dama ñëw léegi booy na ma monsieur le préfet mi ngi mhm. ne ma yaay préfet. léegi yow maanaam Ndakaaru léegi ku fi war a def dara yow lay tàggu. Mhm. waaw. Ah, mais ah, la. ñuy loolu la ñuy jéem a sabablu mais am nañ ay kilifa. am nañ ay nañ déglu mais attends nañ moom mooy wax mooy préfet bi. ay kilifa. fii yi fi nekk yëpp yëpp yëpp yëpp si Medina Fass Colobane Gueule Tapée Grand Dakar ñoo si gën a tuuti ñun ñun ñoo si gën a ndaw waaw ñun ñooy seen caat ñoo si gën a tuuti nekkuñu kilifa kenn ñoo ñu si jàng lañ toll quoi am nañ fi ay kilifa nag di leen ñaanal ñoom ñëpp ndam bébé Diène fas Fass Ibou Afia Mbaye Guy gi comprends di ñaanal ñëpp quoi barki Serigne Bamba Gris Bordeaux waaw di la ñaanal ndam ñoom ñëpp Gris 2 waaw suñu Coréas ñoom ñëpp maa la ñu bëggee dur na am na combat bu faas sama waay la gis naa waaw ci gili kenn du moom barki Serigne Fallou si tabu anti xam nga bu Afiye Cere barki Serigne Touba mënu ma lim nag imposé ñoom ñëpp xam nga waa wakaam yi waa wakaam yi waa banlieue taalaay adduna plateau ñëpp tey dama waaw ñu ñu dugg tuuti ci ci ñu xuus dugg biir arène nationale. Mhm. bi nga ñëwee arène nationale nga nga nga nga nga jàpp njaabaat ci suuf si ne fii laa mujjee bëre. Mhm. tey ma fi war a bëri lan nga yëg avant ñu. ba ma gisee waa ji dama ko kii damaa yab ñu waroon contactal ñoo ko gën a os téeméeri junni ñoom du ma <laughs> am si ñoom benn déggoo li ma la. non non du ma am si ñoom benn déggoo li ma la du ma du ma du ma du am ci ñoom benn rëpp ñu may contactal pour ma daal leen damay bëre ba bëgg a dee du ma am si ñoom rëpp carte bi trois bi sax du am si ñoom bu ma tiim ko xam naa ne kii man mënu ma jaaxal quoi su bëree ci kawam day jeex mais li ko ndax mooy daf maa yóbbu day gën a ñeme te waa ji waga la waaw mais yàlla baax na quoi te xeex bi te xeex bi jaarul yoon jaarul yoon daa des da bi xeex bi xeex bi daa des quoi li ma xeex tey baaxul bëre bi baaxul xeex bi baaxul parce que Serigne Touba loolu am mais yàlla moo ñëw ak ndamam waaw mais li ci kanam mooy gën a tàkk lu ñuy gën a dem ñu ñuy gën a xam bëri bi ñu waxoon dafa xaw a da nga xaw a tële mhm. tey ñu gis ni bi nga xeexee bi nga rëppee def trois appuis bi nga sigee da nga mimé ci kaw daw paqueté ko dagale ay tànkam loolu da nga loolu da nga ko entraîné wala da nga cee yem rek waaw mais loolu dama ko entraîné loolu dama ko entraîné ndax fii ikiri bi car macha allah quoi dañ naa la defal li defal defee lu bon ñu ne la lii ak lii ak lii waaw mais loolu loolu loolu loolu loolu mooy ikiri quoi ba pare da waaw dafa am lu garaaw bokk ndey bokk bàyyi ñu nekk ay xale. waaw ñu nekk ay xale yéenante da am problème sax woo Siteu bu anti ne ko lii ak ne woo Ibou Afia keneen ak keneen Bébé Diène noonu Arafas noonu keneen ak keneen xam nga waaw. man du ma am ci ñoom benn rëpp ñu may kontaagal pour ma daan leen damay bëre ba bëgg a dee ma am si ñoom rëpp quatre appuis trois appuis sax du ma ko am ci ñoom bu ma ñëwee tiim ko xam naa ne kii man mënu ma jaaxal quoi su ma bëree ci kawam day jeex mais li ko ndax mooy daf maa yóbbu ardo day gën a ñeme te waa ji waga la. waaw mais yàlla baax na quoi. te xeex bi te xeex bi jaarul yoon. jaarul yoon. daa des. da ko kaaw. bi xeex bi xeex bi des quoi li ma xeex tey baaxul bëre bi baaxul xeex bi baaxul. parce que Serigne Touba loolu am mais yàlla moo ñëw ak ndam waaw mais li ci kanam mooy gën a tàkk lu ñuy gën a dem ñu ñuy gën a xam. waaw bëri bi ñu waxoon dafa xaw a da nga xaw a tële tuuti. Mhm. tey ñu gis ni bi nga xeexee bi nga rëbbee def trois appuis bi nga sigee danga nga ci kaw. waaw daw ko. dëgale ay tànkam loolu da nga dë loolu da nga ko entraîné wala da nga da nga cee yem rek. waaw mais loolu dama ko entraîné loolu ndax fii ikiri bi. car macha allah quoi dañ naa la defal li defal lii boo defee lu bon ñu ne la lii ak lii ak lii la comprendre waaw mais loolu loolu loolu loolu loolu mooy ikiri quoi ba pare da waaw dafa am lu garaaw bokk ndey bokk baay. ñu nekk ay xale. ñu nekk ay xale yéenante da ngay am problème sax woo Siteu bu anti ne ko lii ak lii mu ne woo Ibou keneen ak keneen bébé jën noonu. Arafaas noonu keneen ak keneen xam nga waaw di bëggee ñëpp quoi tamit autorité yi tamit xam nga. waaw nga xam ne xam nga law tey jii nii ñu ma jàppale bari nañ law barki Serigne Touba suma ma limee kii tey ku si mel ni Cheikh Ba ku ci mel ni Bamba Fall ku si mel ni Akanama ku ci mel ni Pape sama jigéen ñi nekk Kaaw ba ay ñoom Kolle sama mag bu jigéen bi Faama xam nga ay ñoom Taga Jopis ñu bari jàppalañ ci quoi suma ma ku nekk nag su ma limul sa tur waaw maa ngi tuub di jégalu mënu ma jàpp lépp barki Serigne Touba waaw Kirikou ñëpp xam nga ñoom ñëpp maa la ñu bëggee quoi barki Serigne Ba famille Jaxabi bi yëpp maa la ñu bëggee waaw ñëpp amul kenn koo xamante ne ay ami limee ami lii waaw di ko ñaanal mu waaw dafa feebar mu ko ñaanal mu jóg maajoor kii nu mu tuddati patron yerme bi xaw ma lan loo waaw ñoom ñëpp jàpp nañ ci barki Serigne Touba Mbacke waaw monsieur le maire Bamba Fall ñoom ñëpp bëggee na leen waaw sama yaay bii moom sama maam bi moom yàlla ko fi yàlla bàyyi zana bokkaande kenn du moom tamit barki Seydina Muhammad waaw ay papalaay waaw xam nga ay Ibou Si ñëpp jàpp nañ ci Seydou Baye Fall Bekaay Tekos day ñëw rek na ma man la suma waaji Balla bi loo bëgg a jël barki Serigne Afio Mbacke waaw ak kii sama waaj yi tamit kenn du moom waaw dama ko sama sama waaj yi kenn du moom ah. bëggul sax may tudd turam barki Seydina Mouhamed mais sama waay la di bëggee tamit sama dof bi borom jàmm laay ay ñoom Dame Ousmane Noreyni comprendre nga ci bi Bagna ñëpp maa leen di bëggee quoi Fallou Isi sama gars yi ñoom Cheikhou Thiam bilan bi mënuñ ko xam xale waa campénal yëpp waaw def tey ci li jëm ci wàllu mystique parce que tey li fi gën ci ay saako man dama doon ay sarax la ndekk yëpp yaa ko moom mais law sama loxo yi daa bënn man lépp lu ma yor dama koy joxe même bu dul sarax sax lépp lu ma yor dama koy joxe barke Serigne Touba Mbacke xaw ma laa ci def mais man ndam daf maa jaral law man du ma la fen damaa bañ defet barke Seydina damay dox am naa ah, làmb ji ma jóge xam nga ñu bëri dañu umpule barke Serigne Touba Mbacke mais yàlla baax na li ci kanam mooy dàkk di wax yàlla jàmm yàgg quoi nag jàmm moo andi ndax jàmm su fi amul woon comprendre nga. Mhm. waaw li yëpp du ci am. waaw gis nga ba mel ànd ak doon benn say dañuy am ndam. foo teg sa bët. si booy yi nekk fii di réewantu. di tëkk ko ay ñoom Ibou Afia ak yenn booy yi nañ dawal nañ ma may tuut yan booy la. waaw ñoom ñu ngi si. waaw mais ñoom ñu ngi si contrat Ibou Afia mi ngi si contrat. ñu ñaanal Ibou Afia si li mu nekk nii. mu am ci ndam comprendre nga. ñooñu bul tudd seen tur Pape ñooñu maa la gën a dof ñooñu duñ ma jël comprends nga mais yàlla baax kooku du ma ko tëkku du ma ko wax dara du ma wax Laurent Ndiago du ma kenn mais man maay sama yoon déggoo li ma la wax hmm. ñoom bis képp ku yàlla dogal ma waaw ma ma jëflante ak yow su ma paree di nga ne ma kàppu baa ngi nii yàlla baax na li ñu def nii nag du dara. gars yi nee nañ Tapha Gueye numéro 2 comme dafa nekk di may xale yi sens. waaw est ce la mënuma bëre ak mais na la may sens. la. ah ma bëre ak moom mukk. ma la wax maintenant bi ama jàmm. ay ja père. yaa ngeen def baax yi. saa na ngeen maa ngi leen di ziare di leen gërëm di leen sant. di gërëm waa Médina yëpp. Fass Gueule Tapée partout juróom fukki ñëw fukki penc ak ñaar yi ñëpp gërëm naa leen gërëm jàppale nañ si ci combat bi Cheikh bu euh, bébé bébé euh, bébé Diène mention spéciale dama koy bàyyi yàlla subhanahu wa taala parce que Médina ak Fass benn la ñu amul xaajoo ñaar nañu ñu rafet xol yi tàppe nekk benn. yàlla may am fay yàlla nañu yàlla fay mais yow dama kontaan si yow. non sànq père damay wax ak yow nga ne ma tey nga ne waaw xanaa dama loo xam ne waxoon naa la ko nee naa la maa ngi dem li ma def si booy bi xam naa ko booy yi di teg si entraînement xam naa ko mais yàlla na leen yàlla jàppale. mais nag maa ngi maa ngi ah, maa ngi gërëm waa Medina yëpp tout le monde tout le monde Cheikh Bouya daal sigil na ma. te des na nag sama beneen doom ji muy Ibou Afia yàlla na ko yàlla la fa teg si barki alxuraanul karim billahi wallahi wa taala gars yi xaw ma lu mu leen fee. tey dañu euh, bu normal bëre bëre bu ma jàmmal jaaxal tey. parce que gars yi dama déggoon gars yi naan chef vieux mënul xeex mënul bëre waxoon naa leen ne premier combat si ay tolof tolof rek la ñu àjjekkoon combat bi coow li bëri woon na wakkat yi nekk fi mais gi nga bu mu jëlee combat bi man maa ko jëlal sama bopp. mais Cheikh bu yor ma koy bàyyi gi yàlla dama kontaan quoi billaay sama xol dafa sedd mais nag waa écurie Kolo Kolobane Mbolo. waaw gàcceem ak ngalaama. mais kenn du yow. gàcce ngalaama écurie Kolobane mais lépp daa am man lenn sama xol bu seddee rek xolu ñëpp sedd nañ. mais booy dañ ma déggal booy yi entraînement lu mu leen tegoo ñu nangoo ko. kon nag yàlla nañu yàlla taxaw yàlla jàpp ñu ah, ba yàlla may ñu Colobane mbooloo ay champion champion champion si barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi waaw. mu toll nii yaa ngi ci ay xale leen maîtriser leen ñu bokk ndey bokk yi du ñoo ma déggal man tama leen wax ne képp ku fonk ndeyam rek warul saaga ndeyu jàmbur ku fonk ndey ku fonk ndeyam rek mooy saaga ndeyu jàmbur mais boo leen jàppoo nekk benn. raxas xol yi yor jikkoy puso lu xotti nga ñëw lu ñu bëgg dem ko am si kàttanu yàlla ak Muhammad sallallahu alayhi wa sallam si Fallou. documentaire kan la ñuy ñëw foofu documentaire nga wax. boo ñëwee dinaa la wax benn ay documentaire yu leer. parce que lamb ma am lam maa tax lamb am licence. da nga may laaj ba dafay. Yékini Yaxya Diop. waaw xam na sub lu bari si man. wallahi azim mais yal na yàlla xeeb dolli ko jàngatee. Aziz lu mu wax. day créer ampleur lamb bàyyi roi des arènes créer ampleur lamb. non euh, roi des arènes. waaw bu ñuy tax ñu wax roi des arènes du mbaxane moo tax ñu naan roi des arènes. lan moo tax ñu naan roi des arènes. lan la woon. lan la dañ daan ñëw écrit bu nekk ñu génnee fi ab nit mu bëre ñu dajaloo suñu biir bëre drapeau ya man mi man mii di wax ak yow bëre naa da bëre naa chef de l'état de ba ngay seexu di jël man maa jël troisième place fekk ma tax ma ba bëre ma Lamine man dama lay wax histoire lu ràmb wallahi azim mbéy bu may bëreeg Pape Diop fii. Hmm. di tëb ko Iba Mar Diop.